mais dafa am débat bu fi am. Mhm. Euh, Cheikh Ahmed Cissé. Mhm. Euh, un acteur. Mhm. buy wax tantôt ci diine tantôt mu nekk ci ay euh, kiyam mbiram dafa am wax bu mu wax ñu bari yëkkati baat ne dafa tooñ diine islam dafa tooñ yonent bi. wax bi mu wax ak wax bi nga wax lan mooy différence bi. am na loo xamante ni worma la. nit du lépp loo xam tamit danga nga koy wax parce que su yàlla dee wax arrahmaani rahim yi yàlla dafa ne boo jëlee l' ensemble des créatures quatre quarts lañ mu ne quatre quarts yooyu les trois quarts ils sont dans la masse donc am na loo xamante ni boo ko waxee duñ ko mën a dégg léegi mu am le quart quart boobu noonu da nga koy diviser par deux mu am quatre-vingt pour cent du quart ak vingt pour cent du quart. li mu wax mhm. lu waxu la. wala lu non waxuwul waxuwul waxuwul waxuwul man toog naa ma gis uh, extrait bi nii mais loolu moom waxuwul waxuwul ah, mais dafa am des parts lan lañ ci mën a jàpp nit mooy li may wax rek nit ku nekk am na fa àndu am na yoo am na yoo xam ne parce que boo daan lu bari nu ñu firee du noonu mm-hmm. euh, yenn caractéristiques yu ñu jox ñenn ñi loolu euh, loolu moom loolu dafa am ñun on a des discours yoo xamante ni par rapport ak diine donc dañoo travestir dañuy tooñ voilà dañuy tooñ travestir le vrai sens mm-hmm. voilà euh, exactement du Coran et des textes exactement coraniques voilà et ça c'est l'œuvre de l'homme voilà c'est l'œuvre de l'homme léegi lool nag dañ koy rétablir parce que yàlla buy wax yàlla waxul ci tur déedéet déedéet waxul ci tur moom ci leer bi lay wax moo tax day wax ci unicité wax ci dualité wax ci pluralité nii lay waxee te buy wax c'est la lumière qui s'exécute